yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi daa ko dundal fu mu mas a nekk ci yu mel nii di yokk jaamu yàlla gi ak ni ko Yonent bi daan defe nga xam ne bu koor jotaan da daan jàngalanteeg Jibril alxuraan kon noo ngi ciy ndokkeel jullit yëpp fu ñu mën a nekk di ci jiital Cheikh Mahamadul Muntaxa di ñaan sunu borom defal ko gudd fan ànd ak wér ba naa li nga xam ne mi ngi koy yéene yëpp sunu boroom def ci nam ko bëggee te mu ànd ak wér nu ànd ko ak moom di ndokkeel mboolem jullit yëpp di ñaan sunu borom mu nangul nu koor gi te lim ci dëggal yépp ak lim ci euh, wax ne dana ko ci defal koo xam ne woor na sunu borom defal nu ko ci barkeb Seexu Xadim daayira Muxaddamatul Xidma nag ni mu ko baaxoo amale at yu jot bu weer wi jotee muy dundal koor gi fii ci barab bu tedd bi di dundal ruu yi di fàttalanteeg ñoom lu aju ji seen diine waaye it di leen euh, jox ay ndog yoo xam ne bu ñu wooree ba ngoon ñaari taxawaay yooyu yëpp mu amal leen ko ba koor gi tàmbaleek léegi ku ne xam na ne jotaay yooyu yi mi ngi wéy di am ñu ci ànd ak ay boroom xam-xam yu mag yoo xam ne euh, ku ne ràññee na leen ci waaru xam-xam ñu ci di ci jàngalanteek ñun ay bind yoo xam ne yu yitteel doomu aadama la lu ko yitteel ci dundam la waaye it lu ko yitteel ci diineem la tey jii it mu mel ne jotaay yooyu lañuy ñuy wëyal di indi ab tomb bu am solo boo xam ne bu jamono laaj la muy digle lu baax ak tere ab safaan ku ne xam na ne doomu aadama bi soxla na mu xàmmee lu baax waaye it xàmmee ab safaan waaye soxla nit ku koy fàttali koo xam ne danaan ko defal lii bul def lee wala bàyyil lee wala bu ko jege loolu mooy li nga xam ni nit ki soxla na ko ba tax na daayira bi tànn tomb bu mel noonu nii muy li nga xam ne moo tënk nit kiy digle lu baax ak kiy tere ab safaan yan ak yan ak yan lañ ci war a am ak lan mooy digle lu baax ak lan mooy tere ab safaan kan moo ko war a def loolu yëpp mooy solos jotaay bi nga xam ne jamono laaj na ko lool ndax ku ne xam ne ne fi ñu jamono toll ku ne ma ngay jéem a wax ne mooy digle ñii it xàmmeetuñ ku leen di digal lu baax waaye it xàmmeetuñ ku war a wax ku war a tere ab safaan ak yu ni demee loolu yi moo tax kon daayire muxaddamatul xidma ci njiital sëriñ Afiya bu su imam ñu tànn tomb bu mel noonu waaye it di ko jox boroom xam boo xam ne ku ko jox tomb bu mel nii di jàngalekat di eh, gëstukat li ci nit ñi di eh, yittewoo yépp incha allah dana leen ko indil nu gën a Euh, nu gën a matale muy docteur Cheikh Mouhamadul Moustapha Diop Ndar nekk boroom xam-xam di jàngalekat waaye di jàngalekatu alxuraan yor daara fële ci Ndar daara ju mag jooji di koy yëngu ak bind ci loo xam ne day jëmale njàngum alxuraan kanam rawatina njàngum daara ak yu ni deme bind ci ay téere def ci ay gëstu yu baree baree baree bare mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la Cheikh Muntaxa dénk jàngkaayu bu mag booy bii di complexe yi Ahmadul Xaddim rawatina nag ñeeru wàllum njàngale mi ci alxuraan moom Sëriñ Moustapha Diop Ndar mii moo ko jiite def ci ay liggéey yu am solo rawatina ci programme bi ak tëralinu njàng mi yooyu yëpp moom mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko doon nos ñoo ko doon yaxal kon ku ko jox tomb bu mel nii dana ko man bu baax a baax a baax muy eh, yi nga xam ne mooy sart yi aju ci digle lu baax ak tere ab safaan te mu war koo ànd ak ñun tomb yi danañ ci waxtaan lu mel ne lan mooy digle lu baax ak tere ab safaan waaye yitte ji nga xam ne digle lu baax tere ak tere ab safaan ak wàccuwaay bi mu am ci alxuraan ak sunna ak mbooleem borom xam-xam yi ndaxte mbir la moo xam ne lu islaam yàgg yittewoo la waaye lu borom xam-xam it yàgg yittewoo la muy digle lu baax ak tere ab safaan ni ki noonu bu noppee ci boobu tomb dana jàll ci beneen tomb bi nga xam ne mooy Euh, kan moo war a digle lu baax ak digle lu baax ci boppam ak tereb safaan mooy lan ak yan wàccuwaay wala yan jaar waay lay am ba nit ki mën koo euh, jëfe nu nu baax ci ñaar ñi nga xam ne ñoo ko séq wala sax ñett ji ko séq muy kii digle lu baax ak digle lu baax ci boppam ak ki ñuy digal lu baax ak di ko tere ab safaan kon ngir bañ a rek ndax euh, waxtu wi mi ngi xaw a dem dañ koy jox rek mu wëyal mu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 alhamdulilah rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin wa ala aalihi wa saxaabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yi way woor yi way naafile yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara bu baax te di leen ndokkeel ci weer wu tedd bii di jiital ci nuyoo bi saaxibi saada cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakke ñaan suñ boroom guddal aw fanam te boole kooku wér te liggéey bii nga xam ne moom la sumb di ko liggéeyal lislaam di ko liggéeyal yoon wi suñ boroom may ko ci ak àggale te waxtu wu nekk tawfiqam di ko gàttandu te waxtu wu nekk ñu ànd kook moom di ndokkeel mbooleem kilifa diine yi ak fu ñu mën a nekk di ndokkeel bu baaxit it euh, daairatu muqaddamatul xidma ci liggéey bu rafet bii nga xam ne moom la saxoo di ko liggéey ci jumaay sëriñ Tuubaa yi di jéggalu bu baax ndax feeñ na ci kàddu gi am soj waaye ah ñu dëgërloo yàlla rek jéem def suñu kem kàttan ci lii nga xam ne moo nu taxa toog fii tey euh, kon ni ko sëriñ bi waxe tomb bi ñu war a waxtaane mooy dawaabitul amri bil maarufi wa nahyi anil munkar ay tënk wala ay charte yi nga xam ne ku jug di ter digle lu baax di aaye lu bon war nga caa tënku tënk yi nga xam ni kuy digle aw yiw di aaye ab safaan war nga caa tënku tem boobu nag nekk tem bu am solo ci ñaari anam am solo ci wàllu xam-xam ndax alquran da cee ñëw ay yoon xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw ci ay yoon boroom xam-xami uma bi ñoom faram fàcce ko jàngat ko ci anam yu baree bari ñu bind ci ay téere yu bari def ci ay jàngat yu bari xawma benn thème boo xam ne ëpp na ko am njàngat ak yitte ko yitte wu ko xeet yu yittewoo boroom xeet yi boroom xam-xam yi saa su nekk ci jamono bu nekk soo demoon ci téere téereb Axdari yi bi nga xam ne ci lañuy tàmbalee jàng danga nga ci fekk muy wax wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha anil munkar li ko tàmbalee ci téere boobu nga yéeg ba ba nga dem ci téere yu mag yi téere boo fi dem danga fekk mu tudd baat yi te mooy digle lu baax di aaye ab safaan ñu di ko boole ci lu ñuy tudd ay faraid ak i sunnan ay farata ak i sunnan ak ay teggin benn nga di ko fekk ci njëlbéenu téere yi walla nga di ko fekk ci mujj ga waaye téere yi noonu lañ ko yittewoo ba fi démb ba fi tey jii ci wàllu it jëfe gi digle lu baax ak ay ab safaan dafa nekk lu am solo ci diine ji lu am solo it ci dundu askan bi ndax bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki mujj ñëw ci càllal ak yonent yi ci moom it la yonent gi tëje gannaawam ab yonent du ñëw gannaawam ab téere du wàcc kon xeetam bi fokk dana am ñoo xam ne ñoo jug taxaw yor liggéeyam boobee di ko jàllale di ko yeesal di ko fàttali jaam bi di digle lu baax tey aaye lu bon kooka lu mën la ñàkk la ndax moom sax waxoon na ne ambiyaa u ulamaa u ummati ka ambiyaa i bani israil boroom xam-xam yi ne ci aw xeetam seen mission mooy mission yonent yi banu israil ya kon saa su nekk munta ñàkk ñoo xam ne ba ba saa di taxaw wooteem bi njàngaleem mii ñoom ñoo koy fab di ko jàllale di ko yeete te di ko leeral moom nag al amru bil maarufi wa mu anil munkar te mooy di digle lu baax di aaye ab safaan mboolem yonent yi dafa mel ne moo doon seen mission ndax njàngaleem ab yonent weesuwul di digle ak di aaye di digle ndigali yàlla yi di ko leeral di di di leeral tere yàlla yi di ci aj artu jaam yi loolu mooy li tënk risaalab yónnent bi yónnent bu fi mas a jaar soo jàngee alxuraan ci seeni qissa da fekk seen njàngale mépp ci suufu ñaar rekk la tënku leneen lu ko génn nit dafa ñëw ngir firndeel ak leeral ak di feddali lii nga xam ne mooy digle lu baax ak di aayab safaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it mu bokk ci ni ko yàlla melale ni yàlla melale ab yónnantam ndax suñ boroom ba mu koy présenté ci téere yu jëkk ya tawraat ak injiil mi ngi ko présenté mook ak aw xeetam moo ki saxaabam mi ngi leen présenté ñoo xam ne dañuy digle lu baax di aaye ab safaan alladina yattabicuuna rasula annabiya al ummi alladi yajiduunahu maktuban indahum fi ltawrat wal injil yaamuruhum bilmacrufi wa yanhaahum an ilmunkar wa yuxilu lahum altayibat wa yuxarimu alayhim alxabais kon suñ boroom bi mu koy présenté ca tawraat ak linjiil moom ak ñi mu àndal mi ngi ko présenté ci yonent boo xam ne nabi lummi la koo xam ne jàngul bindul waaye moom ak ñi mu àndal dañuy digle lu baax di aayelu ab safaan kon moom mission am ëpp liggéeyam rasulullah sallallahu moom it lépp mi ngi tënku ci digle ab yiw ak aayib safaan kon mooy melokaanu ab yónnantam waaye suñ borom mi def ko muy melokaanu jullit ñi melokaan wi nga xam ne dañoo taqook moom boo demee ci surtu tawba ma ngay wax ne wal muminuuna wal muminaat baaduhum baad yamuruuna bil wa yanhawna an il munkar wa yuqimuuna alsalaata wa yu'tuuna alzaka wa yutiicuuna allaha wa rasulahu ulaika sa yarhamuhumullah alquran mi ngi wax ne jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi seeni kuréel ñenn ñu ne ay kóllëre lañu ca ñetta des seeni kuréel ñenn ñu ay kóllëre lañ ca ñetta des dañuy joxante loxo di dimbalante di liggéey nag ci benn programme boo xam ne mooy digle lu baax ak aaya yu aayal ab safaan digle lu baax ak aaya ab safaan loolu mooy melokaanu jullit ñu góor ñi mooy seen liggéey ak yu jigéen yi ci seen biir kóllërante di taxawal julli di joxe asaka borom bi teg ca wax ne ñuy topp yàlla ñoo ñu dey seen borom dana leen yërëm jullit ñi al yi ak muminaat yi yu góor yi yu jigéen yi seen safaan ñooy munaafiquun yi ak munaafiqaat yi munaafiquun yu góor yi ak munaafiqaat yu jigéen yi li teqalee jullit ñi ak ak ak ak munaafiquun yi mooy digle ak tere mu wax ne al munaafiquuna wal munaafiqaat baaduhum min baad yamuruuna bil munkar wa yanhawna an il maaruf wa yaqbiduuna aydiyahum nasu llah nsaahum anfusahum mu ne mu jullit naafiq yi it ñoom day yu góor yéeg yu jigéen yi dañuy booloo jaxasoo di liggéey ci programme boo xam ne mooy di aaye lu baax di dikkle ab safaan ñoom seen programme mooy di aaye lu baax di dikkle ab safaan kon ñii seen programme mooy safaanu programme mu jullit ñi moo tax ñu mat wattu lañu su ko defee nag kon noonu la tollu moom digle lu baax ak aaye lu bon ci njàngalem yonent yi ci njàngalem yonent bii ci njàngalem jullit ñi ak seen seeni programme waaye it suñ borom ci boppam dafa def digle lu baax ak aay lu bon mooy ngëneel li nga xam ne moom la xeetu seydina muhammad sallallahu wa sallam am ci kaw xeet yi ci des borom bi wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar suñ borom wax ne yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngën ji xeet yéene ngën ji xeet woo xam ne suñ boroom génn la leen ci biir xeet yi ana nag lan mooy seen melokaan ma ne mel ni dafa wax ne li nga xam mooy assuré garanti suñ ngëneel googu ñu gën li koy garanti ba mu mën a continuer mooy ñu wéy nag di def mission bi te mooy digle lu baax di aaye ab safaan moo tax Seydina Omar daana wax ne ku bëgg bokk ci yiw woowu ku bëgg a bokk ci xayriya googu ngëneel googu ku ci bëgg bëgg a bokk na nga jàpp ci charte bi te mooy na ngay nangoo eh, di digle lu baax di ay ab safaan ku ci jàpp na nga xam ne yaa ngi ci biir ngëneel googu nga xam ne xeetu mu Seydina Muhammad moo ko gën xeet yi ci des suñ boroom e, di ci woo jaam yi di ci woo xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne waltakun minkum ummatun yad'uuna ila al xayr wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar saa su nekk jamono bu nekk barab bu nekk na am ci yéen kuréel boo xam ne ñoom ñoo jóg féetewoo di woote ci aw yiw di woote ci jëf aw yiw ak wax ko ak yéene ko di digle lu baax di aaya ab safaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ahadis tamit moom it ñëw na ci digle ak tere lu baree baree bari bokk na ci xadis boo xam ne muslim moo ko solo e abi said alxudri moo ko nettali abu said alxudri mu wax ne yonent bi nee sallallahu alayhi wa sallam nee na man raa minkum munkaran fal yugayirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika adafu al iman yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ku gis ci yéen ku gis ci yéen ab safaan na jóg ci dindi ko soppi ko ku jóg ci gis ci yéen ab safaan man raa minkum ku gis ci yéen moo xam koo ka gis góor la moo xam jigéen la moo xam ku mën a doon waaye fu mu gisee ab safaan na jóg ci soppi ko na ko dindee ab loxoom bu fekkee am na boobu kàttan am na boobu autorité su ko mënta dindi ci ay loxoom ndax amul boobu autorité amul boobu kilifteef kon fa bi na ko reeteet na ko jéebaane na ko leeral ci aw làmmiñam su fekkee ne yàlla joxu ko xam-xam bu mu leerale xam-xam bu mu diglee wala bu mu aayee kon fa in lam yastati fa bi qalbi su fekkee mënul loolu kon boog na ko soppi ci aw ci ab xolam mooy na ko bañ ci xolam na ko weddi soo demee ci Nafrawi ci Fawaakihu Dawaan yi day wax ne na ko weddi ci xolam na ko bañ waaye it na dogoo ak ña koy wax di ko jëf bu mu jaxasoote ak ñoom incha allahu maraatib yooyu nga xam ne mooy soppi ci ay loxo am na ñoo xam ne muy seen wàll ak soppi ci làmmiñ am na ñoo xam ne muy seen wàll ak soppi ci ab xol lu ci nekk daañ ci dikkat waaye li ma waxoon léegi ne digle lu baax ak aaya lu bon moo garanti diine ji moo garanti diine ji des fi moo garanti jikko yu baax yi des fi moo garanti njànglem alquran mi ak sunna ak mag ñu baax ñi des fi kon fokk muy am lu ko moy lépp dana nax saay jóge fi moo tax al imaamu al ci téere al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar mu bokk ci téere bii ñuy tudd ihya ulumuddin day wax wax ju am solo ci digle ak tere nañ ko bàyyi xel day wax ne inna al amra bil wa nahya anil munkar huwa al qutbul fi diin digle lu baax ak ayib safaan mooy xutbu bi gën a rëy ci diine lan mooy xutbu mooy ponk bi gën a rëy mooy pëj bi nga xam ne diine lépp ci la jàpp mu daal di wax ne huwa al muhimmu allazi btaasa allahu bihi nabiyina ajmain mooy yónnent bi nga xam ne moom la boroom borom joxoon mboolem yonent yi ñoom ñëpp seen mission mi ngi tënku woon ci digle ak tere mu teg ci wax ne walaw tuwiya bi saatuhu digle ak tere buñ ko lemoon teg ko ne bàyyi ko wa uhmila ilmuhu wa amaluhu jàngalee ko jàngatuñ ko buñ ko defoon nee na la taattalati nubuwa kon yonent gi nga xam ne moo indi diine indi quraan ak sunna indi mbaax gi kon su boobaa day neen yonent gi day neen wad ma xallati diyaanatu diine ci boppam dafay naax saay wa amatil fitratu nit ñëpp dañuy dellu nañ meloon avant ñuy amub yonent di dund ak jaahiliya wa fashati dalalatu ngëlëmti ci boppam day daldi di tasaaroo wa shaat aljahaalatu wa shaat aljahaalatu ak réer ci boppam dal di wesaaroo wastashra alfasaad yàqu dañu dugg daal dugg lenn lu nekk wa taasal xarq xottiku bi daldi yokku wa xaribatil bilaadu réew yi dal di ràpp wa halaka al ibaadu jaam yi dal ñëpp dal di alku kon nee na bu fekkoon ne digle lu baax ak aaya lu bon amut fii la yëf yi mujj ak yonent day daldi di neen diine dal di naax saay riir dal tasaaroo ngëlëmte daldi daj fépp lépp daldi yàqu su ko defee réew yëpp daldi di ràpp jaam yëpp alko lu tax ndax al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar menn moom mooy assuré mooy garante mooy gàrdu fou bi nga xam ne mooy taxaw xippi di saytu njàngaleem diine bi ba mu des fi di fi des ñu di ko donnante ba ba mu sob yàlla àddina tukki kon da ponk bu am solo ci diine su ko defee nag lan mooy amru bil maarufi wa nahyi anil munkar lan mooy digle lu baax lan mooy dindi ab safaan moom day da di liggéey boo xam ne ni ñu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon liggéey rasulullah daan dox ci mbedd yi di jubbanti dëng dëng dem ci marché yi di dëgg di di jubbanti dëgg dëgg dëgg dëng jaam yi abu hurayra soloo na xadis wax ne rasulullah day dem na ci marché bi fekk soxna suy jaay aw ñam rasulullah xool ko ba mu yàgg mu dugal ab loxoom ba ci biir fa naalat asaabiuhu albalal bi mu dugalee loxoom ba ci biir daj ay tooy tooy mu génne ko ne soxna si ne ko maa haadihi yaa saaxiba taam mu lii lu mu yow borom ñam bi mu daldi ne ko asaabathu sama kii day dafa tawte rasulullahi ne ko bi mu tawtee lu tee tooy tooy yi nga génne ko ci kaw ba nit ñi gis ko ku bëgg a jënd ku bëggul bàyyi teg ci ne man rachani fa laysa nii man dey ku ger ku ma ger bi maanaa ku ma kooj bokkoo ci man te lii kooj la mooy kooj mooy boole lu baax ak lu ak ak lu baaxul dina ku ko def bokkoo ci man kon mu daan yonent yàlla bi ci kaw suuf di dundal di di di di indi diine ji ba noppet di pratiquer digle ak tere ci mbedd yeeg ci marché yi ba mu fi jógee it di ko fi wuutu di ñeenti xulafa yu ne ca loola ba mu fi jógee nguuru lislaam yi fi taxaw di banu umaya banu abbasiya ne ca loola waxtu wu nekk ñiy digle ak di aaye ne ci waaru digle ak aaye di ko pratiquer bi ñëwee nag ba ci nguuru banu abbas ci lañ nekk ci lañ ko def nag mooy institution mu bokk ci léegi ab banqaas ci banqaas nguur gi ñu tudde ko alxusba alxusba mu nekk ab banqaas ci bànqaasu nguur gi boo xam ne dafay assurer sécurité société bi ci wet yépp tey bu ñuy wax xusba ñeenti ñeenti ponk la waaye ponk bi jëkk mooy almuhtasib mooy kiy digle lu baax ak di ayab safaan buñ koy taarif dañuy wax ne almuhtasib mooy ki nga xam al aamiru bil maaruufi ida zahara tarku wannaahi an il munkari ida zahara fialu muxtasib mooy koo xam ne day taxaw ci digle lu baax bu demee ba seetlu ne ñu ngi koy baax day taxaw ci digle ab safaan bu demee ba seetlu ne ñu ngi koy def kooku mooy al muxtasib kon gis nga nekk na léegi ab banqaas ci banqaasu nguur nga xam ne buur mooy nomee kuréel bi koy tànn leen ci ay critères wutal leenub njiit yox jox leen ay seleer ak ay moyens yoo xam ne moom lañuy ñuy liggéeyee seen liggéey nag dafa yaatu ndax ñoom ñu ngi ci jàkka yi di xool ba xam nit ñaa ngi jekkal sàppe jéppal lu ñu sàppe ndax jàkka yaa ngi taq gone yi ne ci bunti jàkka yi di sàcc dàll yi ndax mi ngi am wala amut ndax jàkka yaa ngi leer ndax ñu ngi koy defaraat ñu ngi ci daara yi ndax ñu ngi jàng programme bu baax ndax am nañu jàngalekat mbaa loru wu ñu ñu ngi ci marché yi ndax ñu ngi jaay lu dagan ndax balance yi e, nekkul balance yu gëll góose yoo xam ne kiy jaay ci avantage am rek la moom lay jaayee ñu ngi xool ndax e, waruwaay yi ndax nit ñi ñu ngi ciy raj raj loo ndax góor nag jigéen ñaa ngi jaxasoo ñu ngi xool marchandise yi primé yi ndax marchandise yu baaxul yi ñu ngi indi ci réew mi wala indi wuñ ko ci réew mi ñu ngi dem bus publique yi ndax mi ngi sëpp ndax jigéen ñi góor ñi jaxasoo wuñu ñu ngi xool mbedd yi ndax mi ngi taq ndax mi ngi taa akum ndox ñu ngi xool hôpitaux yi ndax ñu ngi faj nit ñi maanaam ihtisaab ci état islamique dafa nekkoon benn brigade boo xam ne benn instition boo xam ne fenn fu nekk sañ-sañam ma nga fa bëtam ma nga fa kàddoom ma nga fa muy jël ci nguur di indi ci ñoom di fab ci ñoom di yóbbu ci nguur amoon nit sax sañ-sañu léeg-léeg bu sanction sanctionné jotee ñu sanctionné xupp nit wala sax caw ko wala wala def ko leneen muy lu am solo loo xam ne xeet wi fi nekkal ak diine ji diine ji bu mu ropp xeet wi na ne ci jàmm léppam nay dox kon daal di ngay gis kon ni mu amee importance ñuy dem nag ba jamono soppiku tey ay police ñoo fi am ak ay gendarmerie ak yu ni mel li muy xaw a niru ci jamono daal mooy li ñuy wax police de mœurs police yi nga xam ñooy sàpp sàmm affaire jikko yi te wute lool parce que ñii ñoom li ñuy sàmm jikko yi ci diine ak njëriñu askan wi eh, bu dee police de mœurs nag ñoom ay loi moo leen tënk loo xam loi lu mu baaxal loola baax na dañ koy wéyal luwaa yi nag lu mu baaxulut lu mu bonal ñoom ñu bonal ko kon di leen wutale daat nay bari waaye nii la amee solo kon bokk yi almaaruuf mooy lan lu baax li ñuy digle maa amara allahu wa rasuluhu bi lépp loo xam ne yàlla ak yeneen digle nañ ko dañ ne kooku mooy maaruuf ci boroom xam-xam yi kooku mooy lu baax munkar aw ñaawtif mooy lan mooy maa naha allahu wa rasuluhu anhu lépp lu yàlla ak bi yeneen tam aaya kooka mooy munkar kooka mooy aw ñaawtif dañ ko war a aaye ñeneen ñi waxaat ne lu baax mooy maa xassanahu alcharu wal aqlu lépp lu sharia ak ak xel rafetlu loola rafet na lu bon mooy maa qabaxahu charu wal xaq lu lépp loo xam ne charia ak xel da koo ñaaw la loolu ñaaw la lu tax ñu dugal xel ndax urf aada dafa bokk ci bu dee ngirum malit daa bokk ci sukkandikoo waaye yi ñuy sukkandikoo ngir baaxal mbir ak ak bonal mbir danga dem nag ci xeet woo xam ne am nañ ci baax ay mbaax yu baax yoo xam ne charia al islam nangu na ko eh, nga demit fekk ci ay mbaax loo xam lislaam nëngu ko waaye moo tax kon fokk lu sharia di baax lu lu lu aada di urf di baaxalit day fekk sharia dëppoo ci ak moom lu aada di bonalit day fekk sharia dëkkoo dëppoo dëppoo ci moom moo tax ñu indiwaale ñu indiwaat taarif bi bu mujj bii ma wax kon daat nay leer ne daal lu baax ak lu bon moom ñu ci jible ad diinu wa addina ak diine mooy waar wi nga xam ni ci la liggéey boobu di liggéey léegi nag ana ñen ñoo ko war a def gis na ni ko alxuraan siiwale ni mu duggee ci diine ni fise ci mboolem liggéey yonent yi tax na mboolem boroom xam-xam dëppoo nañ ne fardu kifaaya la te it képp ku man war na la nañ bàyyi xel ni kiy la lu baax du aaye lu bon may nañ ko tudde ad daaiya kuy woote ci yàlla ndax tey moom moo gën a placé ci turu muxtasib ndax mustas muxtasib kooku ci institution la nekkoon ci état la nekkoon mays na ko tudde kii waaye nañ ko tudde ad daaiya ndax tey duaat yi mooy ñuy woote ci yàlla di leeral diine ji tey ñoom ñoo yor mission digle ak tere ma wax daa daaiya nag bokkut ak aalim bokkut boroom xam-xam mën na koo doon waaye mën na koo bañ a doon bokkut ak alqaadi yi koo xam ne mooy atte mën na koo doon waaye mën na koo bañ a doon mën na koo doon waaye mën na koo bañ a doon kon rolu e daaiya mooy rolu ki nga xam muy diglee ko aaye dañ ne liggéeyam boobu waajibun ala kulli qaadirin min almuslimina soo demee ci ulama yi téere boo gëstu doon seet ba xam ñoom boroom xam lu ñuy wax ci warte fi dañ naan fardu kifaaya la boo xam ne képp ku ko man war na la képp ku ko mën rek moo xam yow boroom xam-xam nga moo xam doo boroom xam-xam waaye daal daal ñëw ci charte na nga xam li ngay digg ak la ngay aaye moom donte doo boroom xam-xam kon ijma am na ci borom xam dëppoo nañ ne war na képp koo xam ne man na war na képp koo xam ne mën na settewul kenn na doon góor na doon jigéen na doon ko am na doon ko ñàkk na doon ko weex na doon ko ñuul na doon ku ku yilife na doon ku ñu yilif kon gis nga ni mu yaatoo su ko defee nag léegi ñu teg nag ay dawaabit ay tënk yoo xam ne ki jóg nag di digle lu baax tey aaye mission bu rëy boobu nga xam ne njariñal ñëpp ci nekk kooku nag na am ay tënk yoo xam ci lay tënku mu am tënk yoo xam ne mi ngi tënk kon ki koy def ci jëmmam ji ay charte yoo mënu cee ñàkk am yoo xam ne dafa tënk li ñuy digle di ko aaye am yoo xam ni dafa aju ci nu ñu koy soppee boo demee bay soppi di tax yiir ci sa loxo wala saw làmmiñ wala sab xol noo koy defee incha allah taala lu ci nekk dañu ci dikk ci ay tënk ñu wax ne bi ci jëkk ki nga xam ne kii moo koy taxawee te nee naa la boroom xam-xam yi nee nañ fardu kifaaya la ba bokk yi fardu kifaaya moo gën a diis fardu ayn parce que du kifaaya dafa tënk xeet bépp la poñe xeet wépp la poñe ne lii bu kenn bu ko kenn defut yéen ñëpp ngeen am bakkaar kooku diis na bu ko kenn defut ku ne seetaan ñëpp am bakkaar bu ñenn jógee di ko def nag te it fiihim kifaaya nag ñi koy def buñ néew bal doy nañu nañ doy doy baatub doy lu mat di seet la ndax ñi koy def doy nañu nee ñi koy def nag bu amee ñi koy def te doy doy nañ ci xam-xam doy nañ ci biim su boobaa léegi nag wàcc bakkaar wàcc na ñëpp ndax ñii wàcc nañ leen ko kon fardu kifaay lu diis la moo tax moom fardu ay ni ku gën a yóbbi mbir ndax faydu ay ni fardu ay ni moom ku ne soo defee wàcc nga wàcce sa bopp sa ñàkk def engagé wul kenn fardu kifaay nag ñàkk defam dafa engagé xeet bi lépp moo tax lu ñu ne fardu kifaay la rek bay boo xeet bi jóg kilifay xeet bi jóg fexe loola ba mu am ñu koy taxawee tënk yi nga xam ne moo tënk ki jóg di dëkk léegi di aaye bokk na ci na nekkub jullit ndax yàlla lii kilifteef la te suñ boroom joxut ëpp yéefar kilifteef jullit ñi wala ñu allahu lil kaafirina ala muminina sabila suñ boroom fëbut ay jullit ñi def leen kilifa yéefar yi lii ba tey ak jaamu la lii jaamu la parce que méccam yonent ya moo tax ab jullit moo ko war a taxawee kon ki koy taxawee bu nekkutub jullit la muy def nañ ko tudd leneen waaye jullit moom la ñuy wax muxtasib moom la wax kuy digle lu baax di aaye lu bon bi ci des na doon mukallaf bu ñu dee mukallaf mooy na doon koo xam ne majeur na ci am xelam am nam xel mu mat sëkk xelum nit ba noppi majeur nga xam ne lu mu def moo ko def ci responsabilité am kon liggéey bu réy bii responsabilité la xale duñ ko ko teg xanaa su ko manee mu def ko waaye buñ koy tegee duñ ko ko teg ndax xale ay jëfam engagé wu ko lu mën a def ci njuum tey it amu ca bàkkaar du ca ami daan moo tax kon gannaaw lii responsabilité la kon mu kàllaf moo xam ne day rendre compte lu mu def def ko ci responsabilité ñu mën ko topp lañ koy jox boroom xam-xam yi faram fàcce wax nag ne charte boobu nag charte wujub la waaye du charte ada bi ma maanaa ku majorité mën na koo def su fekkee ne man na waaye ni ko warut ci moom waaw warut ci moom kon charte wujub la mooy ñi ñu koy teg ci seen loos mu war leen kii bokku ci waaye nag su ko bëggee def te jekk ko na ko def mu ñaari charte bi ko ñetteel mooy na doon ku ku ko man lan mooy man mooy man mooy ni ko xadis bi jàngalee su as fekkee àgg na ci degré yi mën a dindi ci ab loxoom mën a dindi ci loxoom su fekkee nekkul foofu ci làmmiñam la mën a dindi fekk mu am man mënu dindi ci làmmiñam leeral kon loolu mooy man foofu lay tàmbalee su dindi loxo jotee nga mën a dindi loxo su dindi ci làmmiñ jotee nga mën ni dindi làmmiñ koo xam ne da ngaa tële yooyu yow amoo ko man kon fokk man am bi ko ñeenteel mooy muy bu am solo mooy xam-xam muy ponk bu am solo ki jóg di digle ak gi aaye na doon ko wax aaliman bil munkar aaliman bil xukmi shar'i fii ma yamuru wa lim jóg di ko digle na ca xam lu ci àtteb sharia lam jóg di ko aaye it na ca xam lu ciy àtte sharia na wattandi ko de waxee njortu wala muy waxe bëgg-bëggam képp liy wax sopp daganal déedéet na fexe ba xam lu ci àtte sharia ci li muy digle muy aaye maanaam bu doon digle julli yi di ci soññee di ci woote na xam àtte julli yan julli ñoo cay farata yan julli ñoo cay sunna yan julli ñoo ñoom nañ sopp mën koy faram fàcce ba loola muy mën a leer ci ab wooteem ak ay digleem bu jugoon di aaye mbir na xam li muy ay degré ban ndax daa bokk ci yu xaraam yi ndax bokk ci yu sib yi wala daa bokk ci xilaaful awla yi nga xam ne rek def ko bàyyi ko moo gën def ko fokk mu xam loolu ndax yi bu xamut yooyu amaa day jaxase lu ne mu di ko teg palaasu moroom ma te su boobaa mu ngi yàq diina ji mi ngi yàqal askan bi moo tax xam munu cee ñàkk xam li muy digle lu ci atte sharia ci li muy digle waaye it li muy tere lu ci atte sharia te wattandi ko di deme njort wala muy demee Eh, eh, aaday boppam aada jum sopp ndax kat xam-xam ndax sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne fa saariu lil ilmi ajmaina li wajhi zil jalaali qaasidina qabla tasadduri wal infiraadi bi nafsi wal atbaai bi tamaadi nee na jóg leen jëm ci xam-xam ngeen gaawtu jëkkanti leen jëm ci xam-xam te ngeen fàggu ko ngir yàlla laata ngeen di taxaw ci kanamu mbooloo mi di leen jiite ci dara laata ngay wommat sa bopp ci wenn yoon laata ngay wommat ñi la topp ci wenn yoon nee la na nga xam ba noppi ndax lépp lu way def te tëgg ko ci xam nee na ak neen kepp la kon xam mënta ñakk xam kon mënta ñakk su ko defee waxtu nekk mu xam an lu baax ana fu tàmbalee fu yem ak lu bon ak fu tàmbalee ak fu yem xam googu fokk mu am li wax fiqhul waaqi boo amee fiq fi diine ba noppi am fiqhul waaqi mooy xam réalité ñi muy digle ak leen ay na xam seen situation bi maanaa ñi muy waxal ban ci man ngir lan nekk ñun ay la ñu nga dikk di wax di ñu digal ci ngirum shaafi'i yi wala ngirum xanbali dina bari luñ mën a digg waaye dina bari loo xam ne nga jaxas suñu xel mënuñu ko digg na xamuñu ko ci Malick moo tax na xam seen situation wàllu ngir ngirum fiq na xam seen situation wàllu tariqa ndax bu fekkee da ngaa bokk foo xam ne ñoom doxuñu ci tariqa yoruñu njàngaleem tariqa nga dikk ñun fekk ñu ci tariqa da nga ñu indil ay wax yoo xam ne ci ay ndigal ak tere daanu jaaxal sa mission du jàll te mën naa indi fitna. kon na nga xam situation ki ngay diggal ki ngay ki ngay ki ngay diggal ak a tere it ci réalité mooy ci wàllu ask fu mu askanoo ci wàllu tariqa ci wàllu fiq loolu lu lu mat a xam la ba ci sax nga xam seen situation ci wàllu am-am wàllu ñàkk masalan ku jugoon di wax ne yelwaan araam na yelwaan araam na yelwaan araam na gumba yaa ngi yelwaan lafañ yaa ngi yelwaan way néew doole yaa ngi yelwaan dongo yaa ngi yelwaan nga dëkke araam na rek te ngaa gëstu situation gaa ñi ba xam dëgg-dëgg an la ñan la yelwaan araam ci ñoom ak ñan lay yella yelwaan araamul ci ñoom kooku fiqul waaqi moo la koy xamal moo tax xam-xam boobu it munta ñakk aji digle aji aaye euh, xam ko moom it mu amit li ñuy wax fiqhul awlawiyaat priorité gis nga dafa am ay waajibaat ak ay mandubaat soo fekkee aw xeet woo xam ne ñoom day dañoo bàyyi ay farata bàyyi ay wartiif rikk bu leen sonal ci leeral ak leen woo ci loo xam ne ay sunna la ak lu ñu sopp masalan koo xam ne kilee woor gi ci boppam moom boolewu ko ci woor gi du mbiram woor kawrug farata gi du mbiram kooku nga di ko woo di ko waar ak di ko xemmem loo koorug ngàtt nga déedéet wax ko ci koorug farata ak fi mu toll ci diine ponk la boo xam ne moo jiitu lépp kon balaa nga wax ci ay ay naafila ak lu ma doon ñëwal wax ak ñoom ci rasumaal bi te mooy capital bi te mooy farata yi ba noppi kooku mooy awlawiyaat xam toujours li nga war a jiital ak li nga war a jiital ba ci it soo fa fekkee yu xaraam ak yu ñu sib te ñuy def yëpp te mun ñu ko bàyyi liggéeyal tàmbalee liggéey ci ay xaraam yi ba noppi bëgg a génn ci ak ñoom doog a ñëw ci yu ñu sib yi kooku it day dugg ci fiqhul awlawiyaat kon fokk mu xam daal atteb sharia ak ci digle beeg tere bi fokk mu xam situation ñu muy digle ak ñi muy aaye fokk mu xam lan moo war a jiitu lan naka jikkat fokk mu xam it ana fu muy tàmbali ak fu mu yem kooku charte la bokk na charte yi na wóolu ne moom mii lii muy tere du indi musiba mu gën a rëy ndax lii muy tere moom munkar la ab safaan la waaye ndax bu koy aay du ko jural jeneen musiba bu gën a rëy a ah, balaa moo dugg ci loolu kon na wàcc te seet ba xam bu fekkee ne mën na koo jural musiba mu gën a rëy kon bu mu ko aayee ko doon aayee nit ki naan aw ñolloo wala mooy aaye nit ki jëfandikoo am tux ci biir aaye ga fitna di ci juddoo ba mën a tuur bakkan bakkan man caa rot kon gis nga mi ngi indi musiba munkar ngay aaye aw ñaawtif waaye mi ngi indi ñaawtif bu gën a rëy kon foofu na taxawlu bu baax seetaat ko bu fekkee ne amul assurance ne lii muy aaye du indi lu gën a rëy musiba bu gën a rëy kon su boobaa mën na caa dugg bu fekkee nga xam ne nag demut noonu su boobaa kon na ko bàyyi xel bu baax may wax lu mel ne bokk yi lii ñuy tuddee suukaru koor suukaru koor day tur wi sax dafa rafet ndax aji woor soo ko joxee ndogu am nga tuyaaba ju rëy ñi koy faral joxe mooy suñu mbokki soxna yi di ko jox ñan seen njëkk yéeg seen seen seen seen seenu nit seenu jigéen kooku rafet la yaa ngi joxe sarax yaa ngi dogal aji woor yaa ngi ko ak bokk kooku masaalix yu rëy ci nekk waaye dem nañ ba nga xam ne fii mu ne nii dafa mel ne ay lor da ciy juddoo nga dégg ci xuloo yu rëy ak bokk gu ci yàqoo nga xam ne ki ko joxe léeg-léeg mu joxe ba noppi ñu xeeb lam joxe di ko ŋawtu ŋawtee wala ëmm ko joxewu ko ñu dal ci kawam di wax waxu nayam ak bank loxoom waaye mënoon na ko fii nii fii mu ne kon njëriñ a ngi nii ci mbir mi waaye ay lor a ngi ci nii ci mbir mi su boobaa nag kon na am fiqhul muwaazanaat na xam na ba xam ana bu fekkee ne lor ji moo ci ëpp mat naa baax su fekkee njëriñ laa ëpp nag kon mat naa def mu def maximum nag fexe ba njëriñ li di gën a bari lor ji di gën a néew waaye it am na yit xeetu mbaax goo xam ne lor gu néew bu mu tax ñu bàyyi mbaax ga lépp kooku nag xàmmee koy waral xam moo koy moo moo koy waral ci misaal dañ may wax ne ma jàkka joo xam ne gaa yi weeru koor dañuy teg dafa am gaa yoo xam ne dañ fa def grand place ca wet gënee teg fa seen taabal di balut ci weeru koor wi waaye nag bu julli jotee bu ñu noddee ñëw julli jàpp ñëw julli waaye bu noppee demaat seen balut am bis nag imaam ji song leen ci ay xutba saa bu rek ma nga seen kaw saa bu xutbaa ma nga seen kaw ba mu mujj gaay mer bàyyi jàkka ja toxal taabal yóbbu ko fa sori foo xam ne jé jégeetul jàkka ju ñu julli waaye julli sax defatuñ ko ndax faf déggatuñ nodd dañuy bël ba waxtu wa dikk duñ dégg dara ñu fa wéy ca bëlëb ba yàlla xam kañ lañuy ñuy julli xoolal kii day danoon tere kar waaye nam ko teree du noona xoolal musiba mi mu gën a jur gaa yi dem nañ duñ dootuñu ñu dégg nodd gaa yi doot ñu julli ci juma ci jàkka amaa sax gaa yi faf doot julli naka noonu kii dafa am soxna xanaa ci bisub kiit gi ah moom nag daa bëgg muy nee na gone gi di muuru nay muuru nag xanaa daal nee na na muuru yooyu gone yi def ci seen i ak di ko jëkk jëkkal yooyu mu ne du ko def na muuru parce que moom loolu la bëgg ci bisub ciit gi xanaa mu xaabaabal ca teraga di ca xaabaabal mu jégg sëy ba yàq foofee gone gi ñibbi kër baayam mu ñàkk jabar ñàkk lam ci defoon kon maanaam toujours li ngay digle ak di ko aaye na nga am xam xikma mbaa du jur lu gën a rëy ndax lu gën a lu gën a lu musiba mu gën a rëy su boobaa defal ndànk ndax tadarruj te mooy ndànk-ndànk sallallahu alayhi wa sallam moom la jàngale lépp lum nu digal ci taddaruj ndànk ndànk lañ ko defloo ba ñu min ko lépp lum nu aaye ba nu ba ko ci ndànk ndànk lañu jaarale ba ñu man ko kon kooki lu am solo la waa tax boo demee dañuy wax sax ne sëriñ Tuubaa soo demee ci jawharun nafiis diggale ak aaya indi na ci ay bayit yu bari macha allah yoo xam ne boole na sax booy seet churóot yépp soo dem nga digg bu naan wa an yakuna aaminan birushdi li nusxatin wa naahiyan an diddi kooka laxdar yu lay way yax laxdar yu moo waxoon wa yamuru bi maaruf waaye da ngay fekk mu ne aadaytu fi ljawaazi wal wujubi loolu mooy maanaam dañoo wax ne ñaari charte yi xam la mooy attib sharia muy benn biñ des mooy am kàttan ci dindi ko ñaar yi moom bu munta am kon léegi daganut sax yow nga di ko def gannaaw xamoo xamoo ak xam am newul ci yow ba noppit mënoo koo dindi ñaari charte yi moom bu ñu dàqoon nee na yow daganut ci yow amaa bu mujj bii ñu wax nag te mooy bu mu indi musiba bu gën a mag nee na moom su fekkee ne charte bi amut aha kay ba tey war na la dégg nga ba tey ba tey eh, dafa ne war amut waaye nag daggan na nga def ko waaw bu fekkee ne mënoo assurer ne du indi musiba mu gën a mag yow day warut waaye daggan na nga def ko ñaaree na moom su amut moom dëggalu nga def ko moom kon beneen charte bi kon euh, euh, tomb boobu lu am solo la nit ki daal am xikma ci li muy digle ak di ko aaye ba du andi musiba mu gën a mag juróom-benn lu sart euh, na xam ne lii muy digle ak di ko aaye am na njariñ wala boog mu njort njortul mu njortu lu dëgër ne dina am njariñ lu am solo na njort njortu lu dëgër ne dana am njariñ lenn borom xam dañoo wax ne xam googu muy xam nag ay degré la ba xam dana am njariñ wala du am njariñ ñu wax ne su fekkee xam na ne moom lii muy wax waxam ji dina soppi ñaw téef yi te du lor bi maanaam du ci loru kooku moom war na ko moom dina soppi ñaaw téef mi te du loru kooku war na ko ki des mooy axakay ah, kii moom li muy wax dana soppi ñaaw téef yi waaye nag daañ ko jëkk ay lor dina ci loru su boobaa dañ naan ko ku jëkk ki moom waajib la ci moom kii nag dañ naan ko dee su wax waajib la ci yow duñ wax ne araam na ci yow ndax li ngay wax dana soppi de waaye lor jël la cay fekk duñ la àtte wax ne waajib la ci yow duñ wax ne araam na ci yow yaay seet nag yow soo defee sa bopp soldaar bu ne cëb xare boo xam ne danga koy sóobu fa bismillah kooku mooy koo xam ne dina am njëriñ waaye dina lor de des mooy koo xam ne du am njëriñ te du ak koo xam ne du am njëriñ waaye dana lor bu dul am njëriñ tey lor kooku dañ ne ko yow génnal li ngay wax du am njëriñ te dalay yor génnal yow ku mujj kii nga xam ne dañ ne du am njëriñ waaye du lor man de li may wax xam naa sax jëriñut lu bari waaye nag def dara fekkuma ci kenn poñe wu ci kenn tëju ci kenn dóoru ci kooku dañ ne sopp nañ muy wax donte du am njëriñ te du lor ndax wax gi ci bopp mooy fàttali yëf yi ba du nelaw ci xel yi ak ci xol yi ñu xam ne waajib la te amaana yàgg ba wut dara daañ ne ba donte kenn dina bàyyi ko ci mbooloo ma ngir waxam ji baax moo tax foofu it assuré est-ce que nga xam ne dina am njëriñ walla nga njortu njortu bu dëgër ni du am njëriñ dina am njëriñ kooku it noonu lañ ko faram fàcce kon it kiy liggéey ci la ko bàyyi xel li ma doon leeral léegi damay leeral loo xam ne dama doon leeral loo xam àggaguma ci njëriñ lii ndax dana am njëriñ wala du am njëriñ moom la boroom xam-xam yi di wax ne su fekkee ne sart bi amut yow waratu la njar da njorta njort du am njariñ kon waru la des nag mooy ah daggan na nga def ko rek wala sopp nañ ko waaw kon loolu mi ngi noonu su ko defee kon kooku ah dem na Cees masalan gis mbaam xuux yiy dox doo rey mbaam xuux de waaye nag sañ nga di wax mbaam xuux ni ko sharia araame la di ci nit ci ay sikk ni mu bone nga gis baar yeeg naan sàngara yi ngay wax ci baar yi di wax ci sàngara ni mu bone waaye nag doo laal dara doo soppi dara tax damay wax ne jamono bii nii addaaya mooy ki nga xam ne kii jamonoom la ñu toll kuy woote ci lislaam di leeral aka a soññee def ko ngir yàlla waaye nag amul benn pouvoir ngir soppi dara ñi am pouvoir dañ àgg ci ñoom kon loolu mooy charte bi jëmoon ci ki nga xam ne kii mooy taxawee euh, dindi lor ji ñëw ci charte bi aju ci lor ji nag charte bi aju ci lor ji bokk na ci bokk na ci li aju ci li ñuy soppi li ñuy munkar bi mooy ñaawteef bi na dekk nekk lu am bokk yi lu amut sikk soo xam ne amut ci ñu ngay waxal xamuñu ko amu ci del wattandiku di ko yëkkati saa su nekk ndax day mel ni di ko yëkkati di ko répété mooy leen koy xamal suñu gone yii di ay donga ne ci daara ji ak ñu mel na ñoom booy wax ak ñoom di wax aw aw aw ñollu fu mu fu mu toll di tudd naanu ñollu am ñoo xam ne cigarette buy cigarette buy takk sax xamuñu ko musuñu koo gis waxumaak aw ñollu kon bëgg nañu munkar bi di ñaaw tiif bi na doon lu am ci askan wi nga koy aaye na am su amut wattandikul di ko tudd ndax tudd gi sax xeetu indi la ñaareel bi na doon loo xam ne it lu ñuy def la lu am nañu koy def ci waxtu wii nii bi maanaa ñawte foo xam ne am na ku ko daan def wala am na ñu ko daan def te baniñ ko kooka dañ ne bu ca waxati bu ca waxati lu dul ci buntu waaraate ak di fàttalee yu safaan yi waaye loola moom bu leen ca tuddati di ca waxati ñawte foo xam ne it ñii dañoo dogoo amal ko te àggaguñ ca nga boroom xam-xam yi ay teggin lañuy jàngale ci lii dañ koo cadré ba nga xam ne du indi benn fitna ñi nga xam ne dañoo am yéene ci def munkar moo xam bu guddee wala bu ëllëgee nga dégg ñu koy wax di ko waajal bu fekkee la nga xam ne xam nga ne ak dogu am na ca def ga dañ ne kon yow la la mooy nga waar kooka wala nga waar ñooña waaye nanga nga ca yem nag waar te waar it nag na nga nooyal say wax bul wax wax ju wax wax ju ñagas waar leen te sax bu ñu weddee ne banañ ko duñ ko def seen dogu googu bu weddee ne déedéet doguwuñ ci amut loolu amut na nga daal di arrêté foofu bul jàllati ci waaraate wa ndax loolu day da indi ñaaw njortu ci ab jullit ñaaw njortu dafa bokk ci li suñ borom aaye inna ba'da ijtanibu kasiran mina zanni inna ba'da zanni isma gis nga kooku niñ ko niñ ko encadré li wees ba nañ ko bu ci waxate lii dikk bu fekkee da ngaa gis ne dañ caa dogu waar leen te yem ci waaraate suñu weddee ne dogu wuñ ci na nga arrêté foofu ba ba nga koy gis te nga bañ a ñaaw njortu ci ci sa mbokkum jullit ñetteel bi mooy munkar bi nda doon lu feeñ njortu yi munkar boobu di ñaaw te na doon na doon lu feeñ loo xam ne deesu ko lu ñitu doog a koy gis ndax seeni borom dañ koy nëbb bu fekkee nga xam ne nag seeni boroom dañ koy nëbb yow kon bu ko lu ñitu ndax alquran moo wax ne wala tajassasu wala tajassasu wala yaxtub wala yaxtab baadukum baada kon gis nga ni mu yare aji digleeg aji aaye bu fekkee ne balaa nga koo xam dangay yéeg aw sàkket wàcc ci biir di yër ay niig bu fekkee mooy tax nga xam ko kooku bu ko def mukk kooku kon bu ko def ndax ñooñu kat ñu ngay def ab safaan waaye yow gisoo ko te it ñoom suturaal nañ ko ko suturaal nañ ko seen borom ah, suturaal na leen moo tax Serigne Touba moom it loolu di ko wax min duuni tëj siisin dur yi wala istiraaqi sam'i aw istinshaqi raayatin ka fi'li zi nifaaqi walam yajuz baxsun an allazi tatam fi sawbihi aw fi dukaanihi maan aw fi yadayhi aw fi daarihi maa bal kullu di kaana xaraaman munia nee na bël benkar ci ay loxoom naan ko tàll si loxoom a xool ba xam loo ngëpp bul làmb ay poosam naan ko di summi ay yéreem bul ubbi butigam di ko yër bul dugg ci këram di ko di ko di ko di ko visité bul dugg ci butigam lii la sëriñ bi lim muy charab laxdar yi soo demee ca saraaba saraba euh, euh, ci charxul ali euh, ala kitaabil axdar yi nii nga fekke ni ko sëriñ bi indee ca bëy ji noonu nga fekke noonu la ñëwee ci sarab bi kon na fekk ne li ngay aay doon lu ne fàng wala tajassasu bu fekkee ne balaa nga koo gis balaa nga koo xam dangay dugg ko génn di ko luñitu kooka yow loola waru la kon ab yar la boo xam ne diine yar na ko kii taxawe lii yonent bi sallallahu wa sallam dafa masoon a wax sayyidna Muawiya ne ko innaka in in innaka in in ittabata awraati nnaasi kitta tufsiduhum na nga bàyyi xel ne booy topp nit ñi seeni ndenc di lu ñu ci seeni awra da nga leen yàq da yàq seen jikko ndax loolu bokk na liy indi féttéerlu liy indi féttéerlu moo tax fii ci yem lu nañu ci yem te yonent sallallahu tëgg na ba tey koo xam daa gis safaan ci mbokkum juñam julitam mu di ko suturaal bi ko ñeenteel li ngay aaye muy aw ab safaan na doon loo xam ne lu araam la tey dëppoo nañ ci araam gi boroom xam-xam yi nga xam ne moom lañu xam ci ngir mi gaa yi nekk ñoom dëppoo nañ na araam la loo xam ne dañ caa wuute loo xam dañ caa wuute bu fekkee ne sa ngir yow miy aayee ka digal ak seen ngir ñoom ñi ngay aayee ka digal da koo araamal kon sañ ngaa weddi loola yow it araamal ko waaye bu fekkee ne xilaaf da caa am wuute da caa am su booba kon na nga ca def ndànk bu baax loola ñoom dañ cee faram-fàcce bu baax sax dañ cee faram-fàcce bu baax ndax dañoo wax ne al amru bil maaruf saa buñ nee amru xamal ne mu nga wëlbatiku jëm ci lu xaraam bu ñu ko itlaaxee noonu bu ñu nee nëx yu tere ma maanaam bu ñu nee amru boyal ko noonu yem ca ma nga wëlbati ko jëm ca la war mooy farata ya bu ñu nee nëx yu boyal ko tere boyal ko noonu ma nga jëm ca yu xaram ya amma yu war yi bu dee mën duubaat yi yi ñu sopp wala xaram yi bu dee makruh yi sib dañ ne loola moom diggante eh, dagan ak sopp la sopp na sopp nañ ngay digle yu ñu sopp yi sopp nañ ngay tere yu ñu sib yi waaye buñ nee digle moom ak tere rek digle ma nga jëm cay warteef ya waajib ya tere ma nga jëm cay xaram ya su ko defee imaam Nawawi settantal foofu ci tomb boobu te mooy li ngay aaye bu dee lu xaram nañ ca dëppoo mu wax ne ahkaamu sharia yi ñaari xaaj la yi nga xam ne dafa ne fàng leer nañ julli yéeg woor yeeg natt yeeg dem as màkk yeeg ak yu mel noonu ay xeetu jàmm yàlla yu fis yi daal ak yi nga xam ne yu ñu aaye la lu mel ne sàngaraak def na ko sëglu noon ak ak ak ak ak gerak lekk ribaak ak rayak yu ne fàng ñu ne yooyu ñu fàng ne fàng képp koo xam ne xam nga umumiyaat yi mooy xam nga généralité yi xay na détails yi xuut-xuut yi doo ko xam détails yi mën nga ko bañ a xam parce que ko ko alim la moo ko xam te nee woon naa kii mën naa bàyyi nekk alim su boobaa yow man ngaa ne ca yooyu di ca waare di ci soññee ci farata ponk yooyu wala yu xaram yi fi sii nga nekk ca di ca waare di ca soññe waaye nag bu demee nag ca détail ya détail ya su boobaa nag na ko maîtriser boo ko maîtriser wul bàyyil boroom xam-xam àddu ci te yow nga yem fa nga xam masalan tey jii jëfanteeg banque yi ci wàllu alal xeetu lepp yi ak xeetu intérêt yi xeetu takk sëy yi am na ay sew-sew yu ne ci biir xeeti fasa yi am nay sew-sew xeeti fayle yi am nay xew xew xeetu euh, idda idda jàpp idday jigéen am na ay sew-sew ah, xeetu miraas am na ay sew-sew hmm? yooyu mbir ak yu ni mel dañ dañ ne fa kullu amrin mahalli ijtihaadin la nahya fii lépp loo xam ne barabu ijtihaad la boroom xam-xam yi ñëw til ijtihaad di ci feeñal di ci gëstu di ci wax seeni xalaat yow boo àggagul foofu te jëlewoo ci ñoom na nga ci def attention muy fiqhu nawazil xeetu nawazil mooy yiy xew ci jamono yu bees lu mel ni ñuy wax organisation naissance mooy nu ñuy organiser am njur ak limitation de naissance ah ak yu mel noonu lu mel ne jaay sëb cër wala jël ab cër ci kii toxal ko fee lu ñuy wax maanaam fa góor am ndoxam sàmm ko am doom ci genn anam yooyu ay mbir la yoo xam ne borom xam-xam moo ciy àddu boroom xam-xam moo ciy àddu moo tax toujours buy digle na digle yi nga xam ne dëppoo nañ ci buy aaye na aaye yi nga xam ne dëppoo nañ ca aaye ga su ko defee yi nga xam ne dañ caa wuutu na ca def ndànk te bu mu ci xaabaabal lu dul mu jëlee ci ku wóor wala mu bàyyi ak boroom xam-xam ñoom ñu àddu ci loolu moom ba tey mooy penk teg weer wi ak gis weer gis nga wuute yi ci nekk ngis koo xam day sànn da ci day daawa di ci xaabaabal dal ci kaw ci ñi woor wala mu dal ci kaw ñi wóorut yooyu yëpp ak ñàkk tënku ci dawaabit digle ak aay la waaye boo ci tënku woon li nga gëm ak li nga xam wala li keneen xam doo ci basé di dal ci kaw nit woo xam ne xamuñu loola wala gëmuñu loola wala doxuñu ci ngir mooma moo tax yar te gën baax ci loolu kon nit ñi ni ñu wuutee ci man-man ki mën a soppi ci loxoom na soppi ci loxoom ki mën a soppi ci làmmiñ na soppi ci loxoom boobu ki ko mënut nag bañ ci xolam noonu ñu wuute ci ay darajaati soppi noonu it lañ wuute ci darajaati xam kon ñee nañu nañu nañu sàmm seen darajaat bu kenn dugg ci loo mënut waaye ñii it nañu sàmm ay darajaat boo kenn dugg ci loo mënut bi ci des mooy kar bi ngay soppi ñaawteef fii na nga na nga ko soppee lu lu yem lu doy sëkk ci soppi ko bu fekkee daal di ko loo xam lu simple woyof mën na koo soppi genn kàddu wala nga yónnee ca ndaw wala nga woo borom wax ko ko loolu képp mën na ko soppi rikk bu ci yëngal am réew bu ko riiral jox ko dayu bu ëpp loola waxtu nekk kon li ngay soppi nan ko soppeek lu doy soppi ko bu fekkee nag lu rëy ko nar a soppi su boobaa kon su boobaa ah, nga nga nga nga yëngal ba mu soppi ku bopp ndax dañuy wax ne ma zaada ala alxaaja yu'tabaru jarima li nga bëgg ñaawte fi nga bëgg a soppi ci nit ki boo jëfandikoo lu ëpp lam soxla rek yow yaa ngay tooñ su booba te l'islam bëggul tooñ ndax moo moo tax mu waxoon ne fa bi qalbi soo dee ba mënoo yi nga bañ ko ci sa xol bopp ndax bañ nga dugg ci loo xam ne ak tooñ la mujj doon juróom-benneel bi mooy maandu maandu dugal nañ ko ci charte yi am na borom xam yoo xam nañ ne kiy digle fokk mu doon ku maandu maandu mooy li muy digle na koy def bu wér li mu ay na koy bàyyi bu wér sëriñ Tuubaa bu muy wax daf ne waqiila inna zeyni lam yakuna fi charte te mooy maandu ak ndigalal imaam ndax dafa am ñu wax ne fokkit nga am ci ndigalal kilifa balaa nga jug di aaye am ci ndigal ak kilifa boroom xam-xam li ëpp ci ñoom dañoo wax ne maandu du ci charte ku jëfandikoo am ñollu mën naa te am doole yi tere ko mën na koo tere ki julli wut te am doole yi digle julli na digle julli kon maandu du ci charte ndax inna allah yansuru hada diin bi rajulil fajir yàlla bu ko neexee mu fab ab kaccoor jox ko doole yi kuy dimbali diine di xaarik noonu di leen daan di samp lislaam di ko dooleel moo tax ñu wax ne charte adala euh, limaale wuñ ko ci kooku ñu bari wax nañ ko Sëriñ Tuubaa wax na ko ci Jawharun Nafiis Ibnu Arabi Maliki nee na ahlu sunna wal jamaa ñoom ci bopp boppam génne nañ ko ci naka noonu ndigalal imaam ndax dañoo wax ne ndigal li mu ngi ci alxuraan leer naññi mi ngi ci xadis leer naññi mi ngi ci téere gaay bàyyi leer naññi kon kenn du toog naan damay xaar kuma ma ko digal foo gis sa aw ñawtiif daal di koy aaye sa kem daraja foo fekk lu lu lu baax lu ñu bay yiw wu ñu bàyyi digli ko foo fekk aw ñaawti fu ñuy def tere ko kooku su boobaa ndigal ndax dañoo wax ne ki lay jox ndigal moom it léeg sax day aajo ñu di ñu ñu ko aw yiw te aaye lu bon kon bul xaar bu ko xaar ma wax foofu ne bu fekkee ne yow nit ordinaire yaay ki nga xam ne ubbil nañ lu buntu bul laaj ndigal kenn kon it kilifa gi nga xam ne moo yilif ñëpp moom it kon am na ak àqi joxe ndigal jox ay ay ay tere te am na àq ñu digle ko ñu diglu ko di jëfe ko ndax yow mii charia jox na la àqi nga digle nga aaye jox na la àqi nañ la déglu te li nga def nañ li nga wax nañ ko def kon it kilifa gi nga xam mooy yilif ñëpp moom it am na àq ju gën a rëy sa àq moom mi xam mooy lépp boole lépp am na àqi kon digle te bu diglee tere am na àq ñu déglu ko am na àq it nañ koy def ñu bàyyi ko xel bu baax kooku juróom-ñaareelu charte juróom-ñettal bi mooy soo demee nag ci ay teggin la gën a jege ndax am ñoo xam dañ ko boole dañ cee boole ay adab mooy dee ko def rifq ndànk soo demee ba nga xam ne yaa ngi soppi aw ñaawteef wala ngay digg ak yiw waxtu nekk nekkal rafiqan def ko def ak ndànk def ko ci nooyal ak wayafal ndax yàlla baraana bu mayee nit ki ci yombal ci ci nooyal loo xam du ko ko may ci ak taral te it wax nañ ne Abu Jaafar al-Mansuur kenn la ci buur yi buur yi jullit ña wala muy keneen e, wootekat ba da ko song rek rekk waar di ko waar waaraate wu tar waaraate wu metti mu yàgg buur bi si gine ko def ma ndànk ndax yàlla yónni ne ku la gën ci ku ma yées man te téewul mu digal ko ne ko boo demee na wax ak moom ndànk Firawna moo ma yées te Muusaa moo la gën te da da da ne ko wa quula lahu qawlan layyinan waxal ak ñoom ndànk def ko ndànk kon bokk na ci xikma lii tax kii diglee ko ay mën a ci mission mooy mu sukkandikoo di def ndànk di di di bañ di ñagasal di bañ te taral ndax rasulullahi ko suñu borom da ne kon walaw kunta fazan galiza al qalbi lan faddu min xawlika su sa xaw xol wowoon ngay wax wax ju tàng wax ju ñagas di gëdde kon gaa yi dem bala fi te koñ dem bala fa dootoo am ku la dig diglu bay def lu baax wala muy bay ab sabaan kon ndànk gi ci tegg nii la bokk bi ko fukkeel ñu wax na it du charte kii def ñaawteef yi nekk ci di ci moy yàlla masalan gone gu kàllaful boo doon def aw ñaawteef kooku nekkul ansi du mooy yàlla ndax toggaguñ ko jëf kon kooku du ci charte foo fekk aw ñaawteef donte ka koy def togguñ ko jëf du am mooykat waajib la ci yow nga soppi ko kem sa daraja kon du ci charte ki koy def nekk ak di ci mooy yàlla bi des mooy bokk na ci bu fekkee ne ñi koy def ci askan bi dañoo am nu ñuy mel maanaam kon dañoo am tëni bu ñu leen di solo wala kaala gu ñu leen di takkal ba tax ñu xàmmee leen kon boo jógee di ko def na nga yor tëni booba wala nga yor kaala googu ba ko gis xam ne ca nga bokk ndax mooy waral kooka duutu amu lay kooka du la yey mu ne policier rek fi ne policier bu la dabee rek di wax ak yow bëgg laa enquête fab sa yëf te wadu la aw carte sa nga bañ moo tax ñu boole ci wax ne bu fekkee dafa am màndarga mu leen di fësal di leen mandargaal yow mi jóg di ko def kon yoral mandarga ba ndax mooy tax ki nga jëfanteel mën a xam sa àq sa sañ-sañ kooku di fukk ak benn bi ko fukk ak ñaar saa boo sa ñawte fii walla wu ñuy def wala Eh, lu baax lu ñuy baax nanga nga daal taxaw ci saase bu ko xaarale ndax def ko alal fawru def ko defin bu gaaw sa kem daraja waaye bu ko eh, xaare beneen waxtu wala benn weer lu dul bokk xaare ba mu ëpp avantage ndax gis nga nit ñi kat ci weeru koor lañ gën a neex a waar ci julli li ma doon wax léegi ci di ñàkk xam am na koo xam ne dafa may laaj ne ma laata muy laaj sax moom am na mawqif ba pare am na position mais nag gone yi xam duñ julli mukk te bu koor dikkee ñuy woor di ci sonn est-ce que loolu daaju am koor ndax loolu dara la ma ne ko ah kay daaju am koor loolu dara la seen ñàkk julli bu mu tax nga xañ nu koor da ngay sukkandiku ci koor gi rek di leen ñoddi bañ julli. kon noonu bu fekkee weeru koor mooy weer wi tax nit ñi gën a neex a waxal ci diine waar leen ci seen ruux seen xol tooy nga julli loo leen tuub loo leen bu fekkee ne ba tey moo gën a jàpp ni lu dul moom dañuy fitterlu su boobaa kon jar na ah kay nga bàyyi mun munkar beeg euh, euh, ah, ndig digle beeg aaya bi ba waxtu woo ko kooko dara newu ci waaye bi mujj mooy bu am solo dañ ne mbooleem li ngay wax yaa ngi ko jëmee ci keneen waaye loo jëmee ci sa bopp li nga koy digal lépp ngir mu di ko def bëgg mu di ko def li nga koy aay lépp bëgg mu di ko bàyyi yow nag na nga fexe ba looy digle ak di ko aaye na doon li wacc illaahi nga namm ci jëmmi yàlla rek bu jëm ku ma gis ku ma gis ku ma dégg ku xam jublu ci bëz jublu ci wuuteeg buur déedéet na nga fekk kay gannaaw yow mécc mu rëy mi nga di mécc mu yenent yow it na nga ko sellal ba na nga taqoo waxtu ixlaas fadu llaha muxlisina lahu diin moom lañ wax waxtu nekk soo jëmee ci yàlla na nga jëm ci moom ci sellal te bañ koo wax ci ngistal ak lépp loo xam ne koy kooj kooku mooy li nga xam ne bi nga wax ak ñëpp ba noppi yow it sharia yow lii la wax ak yow kon kooku mooy dawaabit ak tënk yoo xam ne benn bu ci nekk am faram-fàcc bu baree baree bari et ma jeexale ko rek benn tomb bi nga xam ne mooy maraati bu taxyir yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ku gis ci yéen aw ñaawteef naka soppi ca ab loxoom ab loxoom buur ku ne xam xam ne moo xam moo am moo am autorité tëj mbir mi dàq ñi fi nekk jàpp waaj yi nangu marchandise mi nga xam ne lewut daganut sañ-sañ buur a ko am moo ñu mën a ne arrêté leen yëngu gi buddi baas bi fay làmp yi arrêté rajo bi dajale chaise yi daq gaañ yi kooku buur a ko man waaye nag buur it bu buñ ko jox soppi ci loxo lépp toog gis nga bàyyi ci biir këram ndey ju baax ci biir këram ak bàyyi bu baax ci biir këram ab sëriñ ci biiri dongaam ña ko topp jàngale jàngalekat ci biir ay dongaam entreprise borom entreprise ci biir emploi ci biir liggéeyam kenn ku ci nekk am nga degré boo am ci mën a soppi ci sa loxo kon degré boobu bu ko xeeb degré boobu bu ko xeeb bàyyi mën naa fa gone yi def lu munkar ci kër gi mu fay lampe bi couper courant bi fay rajo bi nangu portable bi tëj bunt bi li mën na ko kooku taxyir bi yadi la kon fa bi yuxayiru bi yadi buñ ko bàyyi buur waaye kenn ku nekk loo responsabilité lu la lu mu la may ci soppi sa loxo na xam ci la bokk su jàllee fabi lisaani kooku tey jii mboolem duaat yi ñuy woote ci lislaam di diglee ko aaye moom foofu lañ nekk soppi ci làmmiñ waaye buñ ko xeeb ndax kat diggante fanweeri at yi weesu e, duaat yi woote ci lislaam ak leeral soppi nañ lu baree baree bari ci xelu nit ñi ak seeni i comportement ak seen ko lu baree bare ci ko xam askan week ak bi kon am na njariñ ndax ba may wax ne borom bi sax su bëggee def dara lay wax innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lay wax du waxul an yafaala lum na ma sottal da koy wax kon wax tàmbalikaay ab soppi la bu ñu ko xeeb moo tax borom xam-xam yi borom eh, ñi nga xam ne seen yàlla samp na leen ci wet gii eh, seen rôle buñu ko xeeb waaye nag nañu teg rek charte yi nga xam ne ci lañ war a tënku kooku mooy fa bi lisaani fa bi qalbi rasulullahi nee na adaful iman nafra bi ci charxu risala fakat dawaa mi day wax ne adaful iman mu di ko fiiri adaful amal te mooy li gën li gën a néew ci loo war a mën a jëf te mooy weddi sa xol teg ci ne boo weddee sa xol nag jaxasoo te ak moom nang ko dogu nang ko dog loola it na nga fa jóge munkar ba na nga fa bàyyi ko yow jamono bi ñu bokk yi bañ ci xol lu am doole la su su su yaatoo mooy former li ñuy wax opinion publique opinion publique mooy loo xam nit ñi dañuy jëkk ñu ko bañandoo ko ànd rek yëkkateendoo seen kàddu euh, bañ ci xol dana mën a dem ba créer opinion publique dana mën a dem ba créer sax benn association boo xam ne pour défendre nangam la pour défendre jikko yi masalan kooku opinion publique moo ko indi kooku inkaaru bil xal bi bañ ci sa xol moo ko jur mën naa dem bañ def yëkkati benn njàmbat yóbbu ko ca yoon mbooloo mi lool dana lañ jox poids ci yoon mën naa dem ba yóbbee leen sax tey bu ñu dee wax li al misliya ngeen jëgal ma ci tudd ko ci weeru koor ci barab bu tedd bi ñuy wax góor jigéen tey ku ne xam na ne kenn tax yiiru ko kenn soppiwu ko ci loxo wax jiñ ci wax wax ju bari yi soppiwu ko lan moo ko soppi fa bi xal bi nit ñi maase bañ ko rek fexe ba créer benn opinion publique boo xam ne tey jii fiñ ko yóbbu ci soppi ak xeex ko leneen mënu fa àgg jàpp naa ne xaw ma bañ jamono ñu amoon doole waaye duutu bi jamono moo tax euh, inkaaru bil xal bi weddi ci xol lu am solo jamono bi nga xam ne jamonoy démocratie la mën naa ne ki groupe pression ci parlement yi fexe ba ci député ci parlement yi et opinion publique bi def pression ci ñoom ñu voté benn loo boo xam day day discriminaliser mbir mi ba nga xam ne mënatuñ sëñ ñu bañ dañuy indi génn waa yoo xam ne da koy da koy da koy araamal da koy arrêté kooku yëpp mu ngi mën a déparé ci fabi xal bi kon gis nga rasulullahi lu mu tudd ci ñetti degré yi yëpp am doole yëpp am jeexit yëpp mën a digle lu baax yëpp mën a euh, tere lu bon li ma bëggoon a wax lépp aggut li ma waroon faram faj tomb bu nekkit matut xëy na wax ji kon dese naa leer sama kàddu ndax soj mi it lu war lu ñu war a faram fàcce amaana faram fàcce bàccoor bu ci ëmb des na di see leer waaye maa ngi jiglu bu baax loolu la ñu waxtu yi mayoon tomb it loolu la ma may day tomb bu yaatoo yaatu boo xam ne boo boo duggee ci di ko gëstu da nga yéemu ci yàlla ndax fa dafa dafa ñor diine ji ñor boroom xam-xam bi ñor askan bi ba tax euh, ñu yaatal ci lool lool loolu tabaraka wa taala kon ñu ngi sant yàlla mu baax mi tabaraka wa taala di sant muqaddamata xidma di ñaan yàlla liggéey bi suñu boroom gërëm ko liggéey bi ñu liggéey ci barab bi tedd bi suñu borom gërëm ko yokk leen ci ndimbal te it jotaay bi mu yàgg am at mu nekk ñu yàgg ko woote ñu yàgg ko wuy si te lépp lu ñu fi wax yàlla jëm yàlla rek a tax te mu gërëm ko te nangu ko te jariñu ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf docteur Cheikh Mouhamadul Moustapha Diop Ndar waxtaan wi am na solo lool yaakaar naa ñi ko doon topp yëpp. gën nañ cee jariñu bu baax a baax a baax ci niñ ko doon dégg rek muy digle lu baax ak tere ab safaan ku nekk jàpp ne daa am ñu ko war a def waaye ndekete yoote fardu kifaaya la boo xam ne jullit bu ne daa war a gëm ne da ko war a def ni nga ko leerale te sëriñ bit ba muy lim di yooyu mu ci wax wa an yakuna amiran bir di wa nahiyan li nushatin am di la waxoon nga xam ne bokk na ci li war mu kàllaf ba mu waxee euh, yu jiitu yi ba ca ñaareel muy an yu xaafisa ala hududi rabbil arsh wa an yakuna aminan ra ci tegoon mukallaf bu ne war na di digle lu baax di tere ab safaan kon ñëpp la war ni ñu ko waxee muy fardu kifaaya boo xam ne bu kenn rek ne daa am ay kilifa yu ko war a def waaye man waruma koo def dañ maa war a digal wala dañ maa war a tere waaye déedéet yow it da nga war a def ni ko leerale tamit mu ñu nekk xeet woo xam ne suñ borom tagg nañu ci lam ñu taggee bokk na ci ñu Euh, safaan ni it ni nga ko tuddee ci munaafiq yi nga xam ne ñoom safaanub loolu la ñuy def dañuy digle ab safaan di tere lu baax wala yaasu billah ni ki noonu suñ borom wax na ci alxuraan ne am na ñu mu doon rëbb muy waa bani israil kaanu laa yatanahawna an munkarin fa'alu la waxoon dañuy dañoo nekk ñoo xam ne ab safaankat duñ ko tere kon mu nekk tomb bu am solo boo xam ne xëy na waxtu wi euh, xat na ba duñ mën a jaaraat ci yenn ponk yi nga xam ne indi nga ko waaye daal muy wax muy bind boo xam ne bu am solo la te dëppook bind bi ñu doon jàng démb te sëñ Mouhamadul Mamoun doon ko def muy kilifa diine waaye ñu xam ne daal ku nekk daa war a nekk koo xam ne daa war a digle lu baax lu mu gis loo xam ne war na koo mën a euh, saafara wala mu soppi ko te la muy soppi mu jëm ci lu gën la mu doon ba la mu koy tere ak euh, sart yi nga xam ne indi nga ko ci sëñ bi indi ko ci jawharun nafis yooyu ku ci dem dana mën a jëriñ mbooloo mi bu baax a baax a baax kon daal waxtaan wi am na solo lool duñ mën a duggaat ci yenn euh, tomb yi ndax leeraay gi ëpp na solo te fa ma saaba andal xaq illa dalal kon ñu leen jox dig daje rek incha allah suba ak jàmm ci beneen tomb boo xam ne ab bind lay doon muy euh, nàmpal ak yar xale lan la ci islaam wax ak nan lañ ko war a defee ak yu ci aju ñu ciy ànd ak borom xam-xam bu mag muy sëriñ Ibrahima Kebe di gëstukat di jàngalekat di ku dégg fiq macha allah ak yeneen xam-xam yu wuute moom moo war a def ak ñun suba incha allah waxtaan wi fii ci euh, jumaa ji bu ginnaaw tàkkusaan jotee incha allah ñoo ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ngi doon topp ci mboolem jumtukaay yi di leen ñaanal yàlla sunu borom nangu koor gi te fay leen aw yiw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.